mooy waykatu àdduna yi nga xam ne dañuy way ci àdduna ñu delluwaat ci li nga xam ne incha allah suba ci kàttanu yàlla dinañ leen defal firi way buñ ne firi way nag xam naa dina am nu mu jaaxal waaye ca way yi nga xam ne moom la Abu Bilal doon dégg ca bañ koy jox diplôme am ak jaar-jaaram incha allah suba dinañ leen ko defal fii. ci TFM waaye ma eggale fi nga xamee ne fa nañu yemoon ba ñu eggee ca fa nga xam ne mooy finition ba ca stade ba bés boobu nag dafa mel ne diggante Balla gay ak Modou Lo ndax kii di bundux di doomu batar batar nga xam ne batar buut nijaayam la ndax batar buut ak batar batar ñoo bokk benn maam benn ndey kii nga xam ne mooy batar batar moo njëkk a gis doom bu góor tuddee ko bundux bundux nag ak man dañoo maase jamono ba may sàkku xam-xam bundux uti na xam-xam ba ñëw papam daal koy wax ne ko kii nga xam ne mooy ganu alxatime bii lii mu fi jàng bu ko yóbbee tasaare ko ci àdduna ñun lii ñuy jàngale dootul am sens ñu woot ki nga xam ne mooy professeur bu mag bi di xataar zali jóge ci Abu Dhabi daa day ñëw ne wax dëgg yàlla pour ñu mën a séparer ñaar ñii te jàmm mën a am dañuy def défi boo xam ne kii di Abu Bilal li fi jàng yëpp ci at yi na ñëw démontrer ko ci ay kiraama bu ndox bii nga xam ne dafa gàddaa yoon dem ca yoon ba nga xam ne mooy Afghanistan na ñëw indi xam-xamam waaye nag kuñ ci gañe nanga nga nangu ne la nga jàng moom mën la nga jàkkaarloo mu nekk nag rencontre bu rëy boobu maa ngi wéet ki nga xam ne mooy alxatami waa ju doy waar kuñ naan zarla dafa mel ne pitax daa dee jékki-jékki ne bërët daanu egsi suñu tànk bi mu ñëwee daa dee fëgg alxatami ibbi bunt bi jàkkaarloo moom mu ne ko man de batar batar ak batar buut ñoo ma yónni nee nañ seen benn doom bu ñu naan bu ndox ñibbisi na te dafa bëggoon daal jàkkaarloog Abu Bilal pour wan ko ne xam-xamam bi mu jàng ci yow tekkiwul dara moo tax ñu bëgg a tëgg rencontre ak duo boo xam ne jàkkaarloo ku nekk génn say xarxa fuufa foofu alxatami yëkkati bopp bi daa day jàpp oom yi teg sama loxo daa may làkk ci arab ndeysaan raay sama bopp bi làkk ma ci arab ne ma ndax dégg nga waa ji li mu wax na nga xam ne jàkkaarloo boobu nga xam ne duo mystique la boo ci amee ndam rek sa diplôme day génn daal ma koy wax ci arab ne ma alzalikal tërikal wa zamalal wuzala zalakal wuna batar bundux bundux wa zanaka bundux alakasaban bundux wa zalaman bundux ma ngi may xamal ne bundux saay-saay la di ma xamal ne bundux am na xam bu fekkee ne man parewu ma man naa ko wax moom alxatami dana yónnee kii nga xam ne moom la ñu yónnee ne ko nañ ko ba déwén ndax kii nga xam ne mooy Abu Bilal parewul foofu ma yëg sama bopp daa dee xool alxatami ne ko alxatami mu ne naa mën a ko def naa fi at ak genn wàll jàngal nga ma lépp loo xam ne moom laa waroon jàng dafa jot nag ma tari te awma ci benn gàcce awma lu ma ci ragal neel kii nga xam ne moom la ñu yónni ne ko bu demee ne bundux man Abu Bilal pare naa pour jàkkaarloo moom ci xam-xam ci zaarek ci baate ñu defante ko ba ndaw si daa dee li nga xam ne moom la ñu yónni di ndawlu ki nga xam ne moom mooy batar batar ak batar buut daa dee buddi ma nga sol caay gu ndaw te gàtt <laughs> waa ju mën a daw ba mu eggee fekk bundux toog ak yaayam ak ñaari baayam yi di batar buut ak bar moom ci boppam bu ndux dafa ne ki ñu yónnoon koo fa fekk kooku di lox nan ko wasalakal tarikal alakal abu bilal al xatami waazamal wusina kalta alakalu daan leen kooku ne dama ko fekkee mu toog xam naa ne xamul dara amul xam-xam boobu ña ngay commencé ñoom jël seen ay sàngara di ko naan jigéen ñi wër leen mbumbaay bi dem ñuy way di taaxuraan di yàq ba pare nag jël xibaar bi dawale ko ci biir askan boobu nga xam ne mooy Xuraysin ne leen jàkkaarloog Abu Bilal ak Bundux Bundux mooy kan mooy doomu Batar Buut Bundux mooy kan mooy sëtu ki nga xam ne mooy maire Poutar Bundux mooy kan Bundux mooy jarbaatu Batar Batar Batar Buut ndax Batar Batar a jur Bundux ñu daa dem jëli professeur bi nga xam ne mu ngi dëkk ca Malaisie booy dem Malaisie yoon la boo xam ne Indonésie la gën a jege waaye ñoom seen xiir ak seen giir ña nga jóge ci askan bu ñu naan wazala ay chinois na yoo xam ne dañu rax arab professeur bu mag ba ñu naan ko xatar daa bàyyee ko Inde jël li nga xam ne mooy gëlëm def ñetti fan ci àll bi daa dee ñëw ne ne xibaar bu neex bi ma dégg diggante ki nga xam ne mooy bundux ak abu bilal jàkkaarloo ku mën sa morom beneen askan bi delloo xam-xam beneen askan bi est que loolu am na alxatami daal na ko e eh, xataar xanaa xamoo ne Abu Bilal mii def na fi at ak ñetti ñetti weer li ma ko jàngal yëpp tey laa koy jox diplôme am su ko mënee ma jox ko su ko mënul ma xam ne bundux mii li mu jàng mooy dëgg alxatami ne tekk batar buut daa jël karol ne leen e ñii li ñuy wax yëpp ay caaxaan la suñu doom bii nga xam ne mooy bundux li mu xam ci xam-xam xajul ci Abu Bilal te dañu yàkkam ci nag bës bi ñu jàpp ko tey ñu ne ah duñ fi jóge kon bés bi dañ koy jàpp suba incha allah ci takkusaan bi képp kuy mbokk Abu Bilal wala képp kuy mbokk alxatami nanga nga noppi préparer rencontre boobu nga xam ne duo mystique la dañu war a def loo xam ne kenn ku nekk woon sa moroom la nga mënee ca la géwal ba nga xam ne mooy géwalu arab ba ñu naan ko Aziz Alwaza yëkkati kàddu gu neex gi waaye ci kaw ne leen daje bi du yomb waaye ku daan mën sa morom te ki daan nag na yeg ci kaw moromam ba ñu xam ne daan na ko ca la sama géwalu juddu bi nga xam ne alxatami ko woon na ko kaay nga taggal ma Abu Bilal ci arab daal di koy jox forme mouvementé ko daal di koy motive ay ca wayal keroog ki nga xam ne moom mooy sama géwalu juddu ba nga xam ne foofu la ma ko alxatami joxe daal may tagg ci arab ne ma yaa abu bilal wa zaylakal abu bilal altarikal abu bilal wa zakal abu bilal taxanako tunaza walakal zuna tuza alkal wunala alsarkala walfuna altuxna altarikal wizamana zabayna zadaynala maanaam tey bu ma doon tagg naan ma jàmbaar ju ñuul gi ki nga xam ne xam-xamam dafa wër ki ko jàngal tey nga ñuy won say jaloore te ñu daw ñu dellu ginnaaw boobu bu ndux mi nga xam ne mooy jabar doomu batar eh, batar buut ak di satu batar batar nekkaat tamit doomu batar batar di satu batar buut lu tax ñu wax loolu seen yaay ak maamam puutar moom ca boppam taxaw na woo askan bi nga xam ne ñoom ñoo sekkoon ngeen mooy tuddaanu leer bi ngeen mooy tuddaanu leer bi masalan daf leen nank daf leen nank daf leen nank ton tonton mag may ñu clip léegi taalibe yaa daanu leer nank nank may ñu clip yëkkati leen ko may leen ko ndox may leen ko ndox may leen ko ndox